ngay góor mbaa jigéen doon jàmbat ay problème ci sa wàllu wérgu yaram sa coono jeex na docteur Baye Mar Cissé indil na la solution moo xam muy ndoxum siti muy ndeyu feebar yi hémorroïde interne wala externe diabète fatiguement général insomnie constipation hypertension ba si éjaculation précoce maanaam ki nga xamante ni dafay gaaw a jot boppam docteur Baye Mar Cissé yemul foofu noonu yow mi nga xamante ni da nga am poids am graisse ci sa yaram bëgg a wàññeeku ñëwal nga seet suñu ak yeneen i feebar yi nga xamante ni ñoo lëmbee jamono ji ñëwal gaaw ñu defal la traitement ay produits naturels sans effet Assainies unité 14 wala nga jokkoo ak ñun ci 77 900 74 80 77 900 74 80 nasaraan bi danaan un problème sans solution est un problème mal posé waaye bi cabinet la solution ñëwee ba léegi problème yëpp am solution. jërë ngeen jëf internet Sunugal 24 ñu ngi leen di nuyu di dikk ak yéen ci xibaari suba gi. dañu koy dooree ci ancien chef de village bu Nengileer bi di wuyoo ci turu Abdoulaye John moom nag bokk na rek ci ki nga xam ni moom la ñu gën a ràññee ci coowalu Nengileer li dox seen diggante ka kii di Babacar Ngom moom nag ni ki démb ci dimanche bi rek yëkkati na ay kàddu jëmale ko rek ci ki nga xam ni moom moo di Babacar Ngom la mu koy xamal nag moo di ne rek ne bu ñu leen a forcé benn yoon ngir seeni doom liggéey ci société boobu nga xam ni moom la bëgg a taxawal foofee ca Nengileer ba tax muy xëccoog ñoom rek seen suuf si nga xamante ni bi nag ñoom ñoo ko moomal seen bopp ñu nga ko jëlee woon ca seen i maamaat rek ñu ñàkk ba ñu demee bàyyi leen nag seen suuf soosee moom mu ñëw rek bëgg leen a jaay doole nangu ko ci seen i loxo waaye nag loolee doon na loo xamante ni bi ñoom duñu ko nangu benn yoon muy xam leen ni sax Babacar Ngom daf leen rek bëgg a génne foofee nga xam ni moom moo di Ndingler waaye bu dem di am moom moo war dem rek te bàyyi leen ak seen suuf ndaxte moom moo ñëw fekk si leen fa ñoom nga xamante ni bi rek foofu la ñu mës a dëkk ba ñuy doon ay tuut sànq ba ni ñu toll nii rek ñoom ca nengileer googee la ñu mës a nekk muy xam ni sax kii di Omar Youm gannaaw ba nga xamante ni doon na fa def ay meeting ca jamono ba ñuy politique doon na leen xamal ni rek ne suuf si kenn du ko mës a nangu ci ñoom ndaxte boobee kàddu yooyu mu doon yëkkati kàddu yi kasaw kasaw la woon ndax boobu soxla woon na leen bëggoon ñoo ñoom ñëpp ñu voteel ko mu defoon fa meeting loo xamante ni bii feesoon na dell ña nga xamante ni ñooy ndaw ya a génnoon rek ñoom mag yi rek ñoom ñoo desane woon muy xamle ni choqué woon noo ko sax ba guddi googee ko Omar yu mu yëkkati woon reeru toon waaye jamono ji ñoom ñëpp fàtte nañu rek kàddu yooye ba tax nag ñuy xëccoog ñoom di leen jaay doole waaye lu ñu ci bañul rek duñu ko ci bañ douane bi nag ñoom defati nañu rek ab opération bu am solo nag gannaaw rek bi ñu wootee lii di ànd xeex bépp trafic de drogue ak nag li nga xamante ni rek mooy bépp ñaawteef ci réew mi teg nañu loxo rek yàmbaagu takku nag ci benn gaal rek gannaaw sax ba ñu koy teg loxo rek fekk nañu fa ñaar ñoo xamante ni bii ñoom jàppale nañu leen rek waaye ca jamono yooyu sax la ñu daal di tegaale loxo rek li nga xamante ni bii moom moo di ni bii ay Camara nag ñu ngi ko jàppee ci diggante Fatick ak Kaolack ci benn Peugeot 406 euh, boo xamante ni bii sax ba ñu ko xaymaa ci xaalis rek toll na ci 22 euh, millions 220 mille yoo xamante ni rek moom la mën a jàll nag ci suñu ay koppar euh, garab gu baaxul góogee bokk na ci ay paracetamol ak yu ni mel rek yoo xamante ni jamono ji ña nga xam ni ñoom la ñu ca tegee loxo sax ña nga ca police bu Kaolack ba ndax ña nga leen jàppee ca diggante ak Kaolack ak Fatick buñ ci jógee dañuy ñëw ca Thiès nag xale bu góor bi di wuyoo ci turu Lamine 30 ans moo daal di ñàkk bakkanam rek ca terrain de football ba gannaaw ba muy arbitré rek ab football bu doxoon naka ci diggante ay xaritam mu taw ba fekk leen fa ñu daal di rek ca biir taw ba di ca football nag ba dënnu ya di wàcc moom mii di Lamine Faye nag ci noonu la ko lii di dënnu yi daal di laalee rek yóbbu nañu ko sax ca hôpital ba fa gën a jege waaye teewul nekk rek mbir mi ba muy ñëw dafa ñëwoon rek ngir jël si ko moom Lamine Faye daal di nay ñàkk bakkanam ci taw bi nga xam ni moo doon wàcc foofee fekk fekk leen ca terrain ba mu doon arbitré rek benn match boo xamante ni bii rek ay xaritam ñoo ca fu doon football dañuy dem fële ca Sacré-Cœur ndaw ya fa nekk nag dañoo jaadi jàpp rek benn sàcc bu jigéen nag daal di koy def rek ay ñaawteef bokk na ci daal di koy takk ba noppi nag suñu yéreem doon làmbatu ay weenam rek doon ko filmer ba ñu ci noppee nag dañoo jël vidéo yooyee daal di koy tasaare ci réseaux sociaux yi loolu nag doon loo xamante ni bi jamono ji askan wi ñu ngi koy naqarlu ndaxte budul dara ki ki ñu jàppoon ab jigéen la ba noppi ñu def ko ñaawteef yooyee filmer ko daal ko koy tasaare ci réseaux sociaux yi bu ñu suqandikoo sax ci benn témoin bi kàddu yi mu yëkkati rek bokk na ci di xamle ni rek xale bu jigéen bi dafa àndut ak sax boppam moom dafa amee rek lii di feebaru xel mbir mi nag ñu ngi ko xam sax gannaaw ba ñu ko jegee rek doon jéem a wax ak moom lañu daal di seetlu ne rek moom xale bu jigéen bi àndut ak rek xelam dafa amee feebaru bopp ba noppi nag ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko jàpp filmer ko rek def ko ñaawteef yooyu lee Dame Amar ak ña nga xamante ni bii nag tegoon nañu leen loxo ci coow loolu nga xamante ni bii lañ leen doon toppee doon ab soirée privée buñ doon amal fële ca Almadi ca jamono yooyu couvre-feu ba benn xale bu jigéen sax ñàkkoon ci bakkanam doon wuyoo ci turu Iba Thiam moom sax la ko rayoon rek na ci li nga xamante ni bii moom moo di dorog moom Dame Amar ak ña ñu jàppandoo woon nag jamono ji li ñu bëgg daal moo dina rek ñu may leen liberté provisoire ba tax sax ñi nga xamante ni bii ñoom ñoo nañu rek dossier bi daal ko koy déposé nag ci kanamu kii di magistrat bi ñu daal di jébbal ko rek ki nga xam ne moom moo di procureur bi fi ak fukki fan daal dina xool rek lan la ci def maanaam ba xam da leen di may lii di liberté provisoire bi wala rek dañ leen di téye ca kaso googee ba tey luñ ci am daañu ci dikkaat ak yéen Touba la ñu jëm benn waay joo xamante ni bii moom ab menuisier métallique la nag la ñu daal di jàppee rek li nga xamante ni bii moom moo di ay arme moom nag arme ya sax toll na ci 110 rek yoo xamante ni bii nag ay arme yu différent la maanaam yu bokkut ak moroomam bokk na ci ay pistolet ak yeneen ak yeneen rek yoo xamante ni bii nag moom ba ñu ko ko jàppee nag dëggal na ni moom moo ko moom nag daal di nañu ko yóbbu nag ca kaso googee nekk foofee ca Touba jamono ji sax ubbi nañu rek ab enquête jëmale ko ci mbir moomee ba daal di xam bu baax a baax li waraloon moom mu yore arme yooyee. ministre bu sport bi nag moom mii di Matar Ba daal di nay mere rek ki nga xam ni moo di Yékini kontaanuloo ci moom benn yoon rek ci kàddu yi nga xamante ni bii yëkkati ne ko jëmale ko ci ki nga xamante ni moom moo di rek Alioune Sarr nekk président bu CNG moom Yékini sax la mu doon ci wax rek moo di ne Alioune Sarr dafa war a rek démissionner postam bi nga xamante ni bii moom moo di président bu CNG kàddu yooyee doon loo xamante bi nag Matar Ba moom ministre sport bi rafetlu ko benn yoon a mu nekk rek kàddu yoo xam ni mu ngi koy ndax te mu ngi xam leen ni sax Yékini waroon naa dem rek ci moom bala mu jubal directement ci ki nga xam ni moom la concerné waaye toog ci émission télé ñëpp di la seetaan nga yëkkati kàddu yu ñaaw yooyee di ko teg rek ci ki nga xamante ni bi moom moo di président bu CNC bi Alioune Sall nag moom Matar Ba loolu rek bokk na ci li nga xamante ni bi mu ngi koy naqarlu bu baax a baax daal di ci mere kii di Yékini combat Sa Thiès Garga Mbossé nag daa dinay taxaw ki ko taxawal rek moo di euh, ñi nga xam ni ñoom ñoo di waa Leewtoo production ñu gën ca ràññee kii di Thialis rek nekk ca bopp ba nag ñu nga xam ne ni sax gannaaw ba ñu génnee euh, saison bi rek defoon li nga xam ne moom moo di année blanche ñu nga xam ne ne rek saison bi di ñëw dañoo bëgg ñëwaatee rek ak doole nag bokk na ci rek taxawal ay euh, grand combat nag bokk na ci bi nga xamante ni moom moo di Sa Thiès Garga Mbossé waaye yemuñu ca ndaxte ñoo taxawal ki nga xamante ni kii di tafaatin nag ñuy xam ne ni rek ne lamb ji nag mu ngi mel ni rek day bëgg a jëlaat yoonam gannaaw rek ba nga xamee ni doon na fi bëgg a suux rek ci ñàkkuma sponsor ak ñàkku ak ay ay grand combat yoo xam ni mën nañu ko ci tëgg rek ñu ngi xam leen ni daal ñu ngi préparé saison bii di ñëw bu baax a baax ak ay combat yu mag kii di Gaston Mbengue ak Thialis borom Leewtoo production nag tooguñu benn yoon ñu ngi rek wéy di taxawal ay grand combat yi ci mujj nag bokk na ci bi nga xamante ni moom moo di Sa Thiès Garga Mbossé ak Tapha Tine ak ki nga xamante ni bi moom moo di Boy Niang numéro 2 ñoom sax ni ki démb doon nañu amal rek seen face to face fële ca Leewtoo production nakar ak tiis la ñu koy jeexalee nag bi wàcc rek ci ñi nga xamante ni bi moom moo di presse sénégalaise bi nag Ousmane Bélé mbay moom nekkoon na rek premier directeur bu groupe de presse bu ñu naan presse à Dakar nag bokkoon na tamit ci ñi nga xam ni ñoom ñoo fi njëkkoon a taxawal rek équipe bu Seneweb nag fii ci Dakar ci jamono ya 2004 wuy jina boromam ni kii sam ni nag daal dinañu koy sax denc fële ca Touba ñu koy jaale nag presse sénégalaise bi yëpp di ko jaale képp koo xam ni mbokkam nga jërë ngeen jëf internet yi lii lañ leen indiloon ci xibaar yi suba gi di leen jox dig daje ci kanam incha allah ak yeneeni xibaar ngay góor mbaa jigéen doon jàmbat ay problème ci sa wàllu wérgu yaram sa coono jeex na docteur Baye Ma Cissé indil na la solution moo xam muy ndoxum siti muy ndeyu feebar yi hémorroïde interne wala externe diabète fatiguement général insomnie constipation hypertension ba si éjaculation précoce maanaam ki nga xamante ni dafay gaaw a jot boppam docteur Baye Ma Cissé yemul foofu noonu yoo mi nga xamante ni da nga am poids am graisse ci sa yaram bëgg a wàññeeku ñëwal nga seet suñu ak yeneen i feebar yi nga xamante ni ñoo lëmbee jamono ji ñëwal gaaw ñu defal la traitement ak ay produits naturels sans Parcelles unité 14 wala nga jokkoo ak ñun ci 77 900 74 80 77 900 74 80 nasaraan bi danaan un problème sans solution est un problème mal posé waaye bi cabinet la solution ñëwee ba léegi problème yëpp ay am solution